maaleykum euh, mbokk internet comme ni ngeen ko waxee tout à l'heure euh, gis ngeen ne ñu ngi fii si université bu Cheikh Anta Diop euh, depuis si fajar nag lii di étudiants yi ñoo génnoon di manifester lii di seen seen mécontentement gis ngeen euh, ay images yi nga xam ne les étudiants grévistes dañoo obligé ñoom génn euh, jàkkaarloo ñii di force de l'ordre yi bu waxtaan ak ñoom mu nekk ay images yi nga xam ne wax dëgg yàlla Sénégal bëgg nañ ko di faral di gis. kooku rek ngeen ñëw dama dégg nga xam ne moom Il ne s'agit pas d'un point de presse. Vous avez demandé à discuter avec nous. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Ce matin, vous avez arrêté notre camarade. J'ai entendu. Pour ça, il n'y a pas de problème. j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu vos doléances. Oui. Mais ce n'est pas de cette manière-là que vous devez exposer vos doléances. C'est pas en jetant des pierres. Mm -hmm. vous pouvez vous faire entendre autrement, mais pas casser les biens appartenant à autrui. voilà, donc j'ai bien perçu, j'ai bien reçu votre message. L'autorité, l'autorité, l'autorité va recevoir votre SMS. Votre message de Merci. Je vais tout envoyer un SMS pour dire ce que vous demandez. Mais pour le moment, rentrez chez vous, arrêtez les jets de Parce que sinon, vous mettez en danger les personnes et les biens. vous êtes assez responsable, vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas des Vous comprenez Donc rentrez chez vous, et quand l'autorité va recevoir votre message. Mais actuellement, il y a une chose, une chose qui reste. C'est-à-dire qu'on avait capté nos éléments. Non, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais régler ça. Voilà, la liberté. Je vais régler ça. Merci, chef. Merci, les amis. Merci. waaw ni ngeen ko gisee noonu ginnaaw bi commandant bi waxtaanee ak euh, lii di représentant wu euh, étudiants yi euh, nee na leen mun ngeen xeex seen droit xeex lii seen ak ak yeneen. sans pour autant ngeen di euh, yàq wala ngeen di toj ngeen ko gisee nous sommes présentement à l'université Anta Diop depuis si suba mu am ay échauffourée entre euh, étudiants ak force de l'ordre waaw mu nekkee image yu exceptionnelle yi nga xam ne yéen koy dund fii ci avenue ni se Diop euh, le forces de l'ordre sont là les les éléments du GMI. moom mooy ñëw wax ak. gis ngeen étudiants yaa ngi noonu di demander la paix di seen loxo oui wax on veut discuter. ñu on veut discuter on veut discuter on veut discuter on veut la paix on veut la paix. voilà image yi ñu ngi leen koy ak waa Wassare News euh, Bambay, Bambay.